musuma dog ci moom dara lu ñaaw musuma ko cee dégg musuma ko cee gis mu nekk asgor nekk nit koo xam ni ko am principe la ku fonk boppam ku fonk nawleem koo xam ni kii ñaar daal mën naa ko wax ci coon du fen du jëw lu mu la wax loolu la gëm ci àddina maa moom bi ñu mujjee gisante fii ak léegi yàggul euh, am ay projet yuñ ñu tëraleen ci wàllu war a defar télévision fii ci këram gii ma def ak moom benn interview boo xam ni maa ngi ko def ak moom ci jamono ji nga xamante ni maa ngi def émission ci Abdoulaye Mbuub ndax coon Abdoulaye Mbuub moo ko yar mu nekk mu nekkoon taaw Abdoulaye Mbuub ci xol euh, bibliothèque bu mag la boroom xam-xam bu mag koo xam ni daawul wooy def daa wax ndax euh, euh, moom fi mu dëkk ci Kajoor ay maamam dameel rek lañ doon àndal ak teen ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko jaale Sénégal gépp di ko jaale kilifa diine yi di ko jaale président Macky Sall xaritam soppeem koo xam ne am lu ñu tënkoon waaye yàlla sunu borom moo xam di ko jaale nag sunu doom muy Lamine Naar bii taawam ak waali ndax Lamine Naar mi mag waali man maa ko ngénte ak Lamine Naar Diop biñ ko tuddee ca booba jamono ak ma Diop Seck ak Tamsir Fall ñoom ñun ñoo àndoon bi ñuy ngénte Lamine Naar waali nekk suñu doom bi mu mujjee kër coon daf ma ne yéegal nga waxtaan ak jaaga ndax yow borom xam-xam nga ba pare historien nga waxtaan ak jaaga ci àddina ak dundinam ni bo ni jigéen di doxale ak borom këram pour mën a jur ku gën borom këram. xaadim bi si mel nii lan la ci nit ñi war a jàngee rawatina artistes yi. mooy artistes yi liñ ci war a a jànge mooy nekk ci dëgg te yéeneente jàmm. Mm. tey rafetal tey wax lu baax. kuy wax sa gémmiñ kuy wax di bégal nit ñi waroo wax lu bon. liñ ci war a jàngate mooy xam ni ku fi nit ku fi ñëw da nga dem. te bés bu mel ni bésu coon sekk ku ne war na ko am te coon méddul déedéet fekk addina yi dox turu coon dootul raaf ci kaw suuf xaadim médd médd mooy koo xam ne da nga dee rek naax saay coon naax saayul non seulement préparé na dundam préparé na deewam yàlla jox na ko doom joo xam ne jii tey bàyyi na ko fekk addina yi dox woyu coon di dox woyu waali di dox coon du fi jóg